langum politique gi indeeti na beneen xar kanam gannaaw élection député yi nga xam ni doon nañu ko amal euh, ci dimanche bi yemook 31 euh, juillet mu mel ni ki rek bi ñu doon voté maire yi am na lu fi xewoon ba leneen feeñ ci xar kanamu politique fii ci biir réew mi ak ay mbetteel waaye bi yoon dafa mel ni kii am na ay kàngam yoo xam ne ñu ngi bootu eh, ci benn coalition di aar Sénégal eh, tey ña ca nekk di Thierno Alassane Sall Abdourahmane Diouf Thierno Bokum Ibrahima Amidou Deme ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ay kàngam lañu saa yu ñu toogee tele am rajo. ak teg ay projet wax lu jëm ci wàllu politique da nga naan gongo nga gis ne ñii ay boromi xam-xam lañu te it boo xoolee seen i politique lu ci bëri rek dañuy waxtaan ak askan bi di teg ay projet ak ñoom seen ñoom di nasaka di nocci waaye daa mel ni ki daal euh, jamono ji politique bi fii ci biir réew mi askan bi la leen gën a ñor mooy kuy wax ak ñoom dugg seen biir xol ak seen biir xel mu mel ni ki daal cofeel la askanu Sénégal di jàppee ab politicien tey it cofeel googu tamit politicien bi dafay ñëw di taxaw ci li nga xam ne moom mooy seen i jafe-jafe di ko tudd ne dina wut saafara ci wàllu boobu. waaye tamit daa mel ni ki làngum politique yi tamit dafa mel ni ki wàllum sot da ciy am boolaalee kii nit ñi dem tekkee farag moom ba may ko doole. kon borom xam-xam yi nga xamante nii yaakaar nañu ne bu ñu nekkee ci réew mi mën nañ fi def lu ne ci ay projet ñoom daal la ñu bëggoon mooy nekk ñetteelu parti politique boo xam ne mooy nekk ci réew mi waaye lii furaas ndaxte ki ñëw bërki Demba Ndiaye nekk xale bu ndaw Pape Djibril Fall da leen daal di duma ñoom ñëpp. mu mel ni ki tamit ñoom group boobu di Thierno Alassane Sall Thierno Bocoum ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ay boromi xam-xam lañu fi mu nekk nii am nañu mbetteel ci élection législative yi ñu mujj kon bokk Sénégal li ñuy wax naan vote affective mooy daal di am maanaam nit ñi dañuy am cofeel ci yow ànd ak yow ba loo woote ñu wuy la waaye dafa mel ni ki am na ñoo xam ne ay kàngam lañu bu ñu tegee projet yoo xam ni dafay jóge ci réew mu ne wala bokk projet boo xamante nii sax daal boo ko déggee da lay yéem nga nit ñii ay liggéeykat lañu te seen xel dafa sell waaye daal bu ñu demee ba élection moom leneen ngay daal di gis mu nekk ay surprise